soxna si peñ alhamdulilah maa ngi leen di sant yéen ñëpp yéen ñëpp gis naa ni ngeen taxawoo affaire bi sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp bon soxna si nu mu feeñee nu mu feeñee donc mu woo ma téléphone mu ngi jooy am benn waay boo am ne ma ne ko jox ma kooku lu foofu expliqué ma ginnaaw Touba la tey mais moom soxna si ci boppam. moom bañ koy jël moom damay laajte clinique bi ci la benn paa ñëw nekk soxna ci clinique boobu ngay laajte balaa yóbbu sama soxna sama soxna mu ne la ci la benn pajero mu demee foofu mu ne si bu la yóbbu soxna si soxna si daal di tugg comme jabaram la nee na jabaram la daf ko yóbbu ci clinique ba soxna si daal di tugg bu mu duggee ñu daw tuuti am beneen jigéen bu nekk ci kanam jigéen bu ñu tooyee ba tollook euh, jigéen bi ci la ko waaj ne kii sama jigéen la moom ci clinique ba la jëm kooku ba mu ubbee bunt ba ci la ko daldi pompe nee na boobu la gis nga xam la nekk waaye oto bi xam ne bii Pajero bu ñuul boobu mi xam ne moo ko jëlee ci corniche bi ci rond-point bokkul ak oto ba ko dugal ci benn kër oto ba ko dugal ci benn kër oto boobu nee na amul numéro léegi nag bu mu duggee foofu ci la ñuy jël ci deretam bi ñuy aspiré ci deretam ba pare léegi nag ñuy werante ñii naan nañ ko rey ñii naan duñ ko rey ñii naan kii jarul parce que booba léegi ñu ngi wax borom këram du feebar ak euh, ay doom yu mu bàyyi ñaari doom la bàyyi woon ñaari doom léegi nag nañ leen ko bàyyi biñ koy bàyyi nag dañu tëkk bëri ñu daw ak moom ba sore ñu daldi di bumax ko tekki bët yi bumax ko mu daanu ñu nangu portable bi nangu souvenir bu mu yoroon nangu xaalis bu mu yoroon ak pochette bi ak carte d'identité léegi nag ci la commencé di daw di daw teew bu ñëwee ba jib ay nit ñoom ñu gis ko tànku neen yooyu muy def ak yooyu ñooy tam daw ñu teg ko am doom daal ba finalement benn xale bu góor daal moo ko mujjee moo mujjee taxaw ba expliqué kooku xale bu góor bi dal di woo ma téléphone ay dix heures yooyu la woon dix heures moyen la vingt deux heures moyen démb ci guddi si nee kame na ci doon dawal oto bi ci nekkoon ci kanamu oto bi mm-hmm. ñaar ñooñu moom nee kame leen ak gardien ba nekk ci kër ga nee na kër ga moom benn ponk lu gardien moom moo fa nekk Mhm. xame na gardien boobu waaw. kër gi ci biir Touba la. biir Touba lan lan saar parce que bi waa police defee seen géolocalisation ak waa intérieur donc euh, parce que dafa sama benn euh, jigéen euh, bu ñuy wax madame Diallo moom dafa am kenn ku mu xam intérieur bi ñu defee ak beneen waay bu beneen policier bi ñuy wax Moussa Kamal ñoom ñaar. bi ñu defee même kii bi lañ même euh, même lieu bi lañ trouvé Touba Lamsar ci tënku Touba bi waaw non non nee na à part jël boobu daal am mais nee na kii biñ ko doon euh, dugal ci benn kii rek la néeg ba moom kese moom moo fa nekk néeg ba sax am na amoon na instant moo xam ne néeg bi karo kese amul amul bassin amul dara karo kese néeg bi amoon na instant boo xam ne yëngu-yëngu dëkk bi ndekkee gardien bi mu ngi ci à côté quoi. léegi nag moom bëgg a rëcc pour daw ba mu génnee foofu ci la tasay teg gardien bi gardien bi dañu koñe ko daal di bumax ko daal di tëj tëj tëj néeg bi mais ñoom ci seen bopp am na ay jigéen ñooy àndal mais nee na ma tam seetlu na foofu am na souterrain nee na foofu seetlu na am na souterrain am na ci jigéen ñoo xam ne nag bu dee bu ñuy prélevé dañuy sol euh, masque mais am na ñoo xam ne ci soluñu masque te boobu tam euh, nee na mu ngi dégg ñuy communiquer. seen biir ñu am kooku ne bu leen génnee bu ngeen génnee rek dañ leen képp parce que dëkk bi fu mu nekk nii commencé na commencé na tàng quoi maanaam autorisation yi ñuy laajte comme am ngeen foofu prélever leen euh, jël leen li ngeen soxla foofu ci deret rek mais bi wóoratul léegi mu ngi dégg ñu ngi ko am na ay tissus yu bëri bëri ay tissus yu bees yoo xam ne tissu figo. ak euh, expresso yu bëri yoo xam ne kenn daajee ko dañuy yore ci ay portable daf kenn xamul lu mu toll. mais mu ngi ngir Touba ci comme gars yi localisé ba kam quartier bu mu nekk euh, na boo ci kanam tuuti war naa dem police ak gendarmerie